mbokk internautu 7actu dal leen ak jàmm ci seen flash actu la xew ca Louga ci hôpitalu saxiir mbay nekk na lu doy waar loo xam ne askan bi yëpp ñu ngi koy mettitlu teg ci di ko waxtaanee astu soxna di ab soxna boo xam ni dafa ñëwoon di wasin si foofee ca hôpital boobee ba tey ci ay kàddu waa kër soxna soosu di astu soxna nee nañu ñàkk prise en charge moo waral soxna soosu daal di ñàkk bakkanam ba tey ci seeni kàddu nee nañu sax ni soxna soose docteur bi waxoon na ko ni ko mënul accoucher par voie normale normal ndax césarienne dong lañ ko mënal defar loolee nag defuñu ko tax mu ñàkk bakkanam ci kanamu yaayam ak boroom këram gi mu àndaloon ci fàttali ma nga ñëwoon ci hôpital bi ba 9h30 ci suba jotee boroom këram sax nee na yoroon na dossier médical bi firndeel ni soxna si dañ ko war a césarienne waaye nag kayit boobu sage-femme yi xooluñu ko benn yoon mu doon nag mbir mu metti lool te bari coow ndax bari nañu ci àddu lool ba tax na mbokk internautes yi daan leen gën a lu équipe bu set actu mi ngi jaale soxna si Sénégal gi yëpp waaye rawatina waa këram wéy leen di suivre ak bàyyi xel seen chaîne bi di 7actu l' actualité en temps réel.